responsable war na euh, ci jamono yu mel nii nga taxaw taxawaay bi président war a am ak bi sunu candidat war a am dépp dem fépp ci réew mi foo yaakaar ne euh, soo taxawee ci weti responsable yi da nga leen yokk cawarte da nga leen yokk njàmbaar loolu moo waral ma ñëw cees taxaw ci weti Awa Doucouré ak ñi mu àndal ngir encourager ko ndax ku nekk xam na moom liggéeyam lu mu toll ci cees ak ci réew mi Euh, ku nekk xam na yi tamit ne liggéey boobu xëy na heure bi waroon na moom mu fekk ko fu gën a kawe euh, waaye ñëw fii ci wetam pour won ko nekkoon ñu ngi ànd ak moom euh, te bu soobee yàlla ci campagne bi di ñëw dinañ taxaw ci wetam pour que lépp loo xamante ni moom mën na ko te nit ñi xam ko te seede ko incha allah mu mun ko sotti ci gafakay Benno Bokk Yaakaar ci gafakay Amadou Ba.